maintenant faites le constat ñan ñooy guerrier guerrieru Ni amul ndomba tank les gens qui n'ont pas de décret. waaw waaw. xoolal bu baax li ma wax. Oh. Khadija Mayakor. Mhm. est en train de remuer ciel et terre pour avoir un décret. wala hmm. dafa bëgg ma wax ko fi tassé won ci kër Serigne Ba. bu ndam taal bul bul bul ma nee naa nga baye mbot yi ngay génnee. déet.

jox nañ ko PCA ah. gune gi la doon défendre gune gi mm-hmm. jox nañ ko ndomba mm-hmm. ki ci émission ba maître Tall jox nañ ko ndomba tànk waaw waaw waaw moom jox nañ ko ci ya. mm, ya. mm. na lu raw ya. mm. Fleur jox nañ Fleur sama doomu bàyyi mm-hmm. société nationale de recouvrement lañ ko jox mooy PCA ba de do def dara de toog muy dox muy dox la toog muy dox non dama ne muy dox la muy dox ñooñu nak dañ leen récompenser non mom moy amna nak tok muy dox amna nak ndomba man man kuma jëlon tay PCA ma contane de mais nak moy tok muy dox waaw amna dañ la def PCA amna la bo xamne dafa dëgg dafa ma dëgg ban la ci Samba hmm hmm xam nga nañ ko PCA mom mais boy passé hmm. bi hmm. yaangi anti système Sénégal c'est le système qui gouverne ouais c'est le système qui est là parce que système nag mooy def apologie de la transhumance. Hmm. Le système. système mooy def apologie de la transhumance système mooy fekk nit ci liste ne ko génne liste bi ñëw. Hmm. <laughs> jëm si. <laughs> transition bi transition bi. Hmm, gars yi nee nañ Adama Fall euh, euh, Ousmane Sonko mi ngi emprunté emprunté le même le même chemin que ki nga xamante ne mooy Macky Sall. ak li nga xam ne mooy mbirum transhumance yooyu. toog naa fii ne leen. Ousmane Sonko fait du maquis pire que maquis, mhm. Pire. Mhm. Du maquis pire que maquis. Waouh, D'accord. Parce que, rappelez-vous de cette fameuse Djibril. De ce fameux Djibril, nous Djibril, madame. Hmm. Mhm. Mais c'est Détifa qui avait porté plainte à Djibril. Ouais. Hmm. C'est Djibril qui a fait ça. Maintenant, hmm. Maintenant, c'est normal, c'est l'équipe de Paris. Il a fait du IDI. Hmm. nga baal ma de. Hmm, lay waat <laughs> du dëgg. Mhm. donc lii. Ibrahima Plia nee na Jibril Ngom la. très bien Jibril Ngom. Mhm. Hmm. li te xam nga gars yi ñooñu xam nga ñooñu ñooñu ñooñu dàq suivre. donc pour te dire que lii mooy. lu grave ñoom dara du leen raw. maintenant <laughs> li ciy danger li ciy danger duudu. Mhm. mooy ñiy dem yëpp xamuñu ne Ousmane Sonko gëmul transhumance. moom kay moom sax dafa waxoon ne ku ne fa nga ne na nga fa toog. loolu ma wax noonu loolu la. da lay andi ku ne fa nga ne na nga fa toog moom waxoon na leen ko. ñi ñëw ñëpp seront humiliés après. Hmm. muy maire. waaye hmm. waaye je répète les mots de Amadou Ba. mandataire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Hmm. démb émission. mu tuddati. moo ko wax moo ko wax Faram Facce moo ko wax ca TFM. moo ne amul benn maire bu ñu jox garantie de réélection. xam nga loolu lu mu tudd. mooy ñëw ngeen de suñu gañee dañuy nangu maire yi de. waaw ah, waaw dafay ne doo bokk sax ci liste bi. doo bokk sax ci liste bi amul benn maire bu ñëw bu ñu jox garantie de réélection. Mm-hmm. Mm-hmm. amul kenn di ñëw ñu jox la garantie de mm-hmm. te dañu la jox garantie d'impunité. d'impunité te amul kenn ku ñëw ñu jox la garantie d'impunité. mooy ñëw leen suñu gañee ba pare yéen ñëpp ñu téegal leen ngeen baal ma ci kàddu.

toutes les mairies du Sénégal dañu bëgg nit ku bokk pastef bokkon ci projet ba. diité hmm. mairie ba. ngay duñ ko jox kenn. duñ ko jox kenn donc ñi taxaw naan man dama nekk maire dama bëgg parce que so liggéeyul ak état do bu na développer ma wax leen ko fii après les élections législatives ma joxaat la information bindal. suñu amee majorité ils vont créer la cette fameuse loi Moussa si bi tasoon maire yi. kon délégation spéciale. mairie yi dañuy tas. waaw ñu demaat élection locale. maa la wax.